dalee nag jàmm mbokk internet yi soxna Aida Diallo dafa am ñu ko bëgg a rey ba tax yenn ci cantaakun yi def benn taxawaay bu am solo ngir rek di artu képp ki nga xamante ne jot nga amal ay kàddu wala sax ak jëf yoo xamante ne dañu jàpp dafa safaanoo ak li war suñu watuwulee jàmmaarloo gu métti dina am ci diggante yenn ci ay murid ak ay cantaakun wala sax ay aydakun ginnaaw si nga xamante ne ñu bëri jot nañu yëkkati yenn ci ay kàddu yoo xamante ne jàpp nañ ne dafa safaanoo ak li di ko teg ci derup soxna Aida Diallo boobule lu bari ci ay cantaakun jot nañu def ab mobilisation dajo dajaloo ci seen biir ngir aar seen njiit loolu lay jàkkaarloo ak képp koo xamante ne yaa ngi yëkkati lu ñaaw di ko teg ci deram seen boobule offensif wala mouvement ñu ngi ko tuddee touche pas mon sëriñ touche pas suñu sëriñ maanaam bul laal bul jege suñu kilifa yi waaw waaw ab groupe bu taxawa ngir rek daal di xeex képp koo xamante ne jàpp nañ la noon nga ci kile di soxna Aïda Diallo ku ni ñu ngi boole lépp lu ñu jàpp ne am ñaawteef la ci ay kàddu yoo xamante ne jëp na jëm ci seen leader biile di soxna Aïda ay kàddu yu ni mel mooy kile di Moustapha Diakhaté ak Serigne Fallou Fall ñaar ñi leen ñu jàpp ne ci ay kàddu yu nga xamante jot nañ ko yëkkati dañuy xiirtal doomu aadama yi ngir ñu dal ci kaw kile de soxna Aïda Diallo ak cantaakun yi àndandoo déglu ñi lan la ñi wax ci mbir moom. salaamaaleykum maa leen di siyaar yéen ñëpp man li may wax nag jarul nuyoo bu bari waaye dama leen di jégal na rek euh, ñu koy waxeeti Aïda Diallo. wax dëgg yàlla jàngal nañ ñun ñëpp nu ñuy gëmee nag moom nag mooy ki gën a gëm ci kaw suuf ci gën a gëm ab sëriñam ci kaw suuf di dox ci kaw suuf mooy Aïda Diallo moom de sëriñam bi lam ko waxoon muy waxi dof lam ko waxoon muy waxu koo xam ne wérul normalul bopp bi toogul benn place moom de loolu gëm na ko mu ngi koy doxe te amul mbindeef goo xam ne ci kaw suuf yaa ngi noyyi dox ci suuf mën nga koo teree doxal ngëmum moom jàngal nañu ñëpp ñun ñëpp jàngal nañu nu ñuy gëmee fii kuy dox ci kaw suuf ne murit nga yaa gëm suñ tubaa waxoo dëgg ak koo mën a doon waxoo dëgg sëriñ tubaa jaraluñu dara tus lañu sëriñ tubaa jaraluñu Aida Diallo mii wan nañu ne yéen ñëpp ay naafeq ngeen yéen murit yëpp ay naafeq ngeen xaalis ngeen gëm alal ngeen gëm ay jéeg yu rafet ngeen gëm kër yi rafet ngeen gëm ay ay oto yi rafet ngeen gëm xalal alal rek àdduna moom ngeen gëm waaye gëmul ne sëriñ ndax Aida Diallo xale bu ndaw bu xonq xonk teg teggi waxi murit yëpp sànni ci àll bi di def lu ko neex di wat di am fit am ci jom ak fulla ak fayda di def lu ko neex ak fu mu ko neexee sëriñ bu bu bu sëriñ boo mën a doon ak koo mën a doon ah, bu la bëggee gis dina la gis indi lay tufeem indi lay million ngay nekk fa di nasal baatakat kii di kii di jéem a yaw yi ay baatin wala jéem a yaw yi nan ay sëriñ nga ak ay dangaa tegu ci yoon ak nangam dañuy fen gëmuñu sëñ Touba fii ku fi gëm sëñ man gisatuma ko fi koo xam ne sëriñ Touba jaral na la dara gisatuma ko fi kenn laa fi gis na xam ne sëriñam jaral na ko ba kenam muy Aïda Diallo moom daal jàmbaar la jàmbaar dëgg la. mbokk yi asalaamaaleykum wa euh, wax jooju ngeen dégg mi ngi tukkee ci koo xam ni Euh, ci njabootu Aida Diallo la bokk di ngeen wax ju bon ji wax ak wax ju ñaaw ji mu wax yépp dégg ngeen ko xamee sut nag mooy kan xamee sut aw turam waaye euh, loolu mu wax rek mooy li leer mooy ci waa kër Aida Diallo la bokk te loolu mu wax da ko fésal waaye mooy li ñuy waxante ci seen biir moom la Aida Diallo di waxtaan ak ay stafam moom lay waxtaan ak ay taalibeem mooy lay waxtaane ak jegeñaaleem donte fasalu ko te looloot moo nekk ci ñoom ndax ay di jàllu gëmut kenn gëmul Sëriñ Tuubaa gëmul keneen ko gëmul Sëriñ Tuubaa moom te murit nga yaakaar naa gëmu keneen eh, Cheikh Béthio moom muy wax sax gëmu ko ndax eh, bu fekkee ne seexaloon na ko yaakaar naa seexal ga ci ndigalul sëñ Sidi Moxtaar dellu woon na ca gannaaw kon su wëlbatiku waatee di di saxalaat loolee di ko ci turu Cheikh Béthio kon wane na ni ab naafeq la waxul dëgg mbébétam ak yéenam nag mooy ñàkkal fayda yoonu murit ña ca gën a kawe ca kilifa yi mu wane ne duñ dara mu wane ne bu wane ne buñ waxee mën nañ caa dellu ko naaw te loolu lu ne e, jaral na ko ko te te ngeen seen bët ndax bi mu demee mun Mountakha ay ñaari yoon yoo xam ne waxtu wu ne la ko Serigne Mountakha wax. lu ñëpp dégg la lu ñëpp xam la waaye dana defi fexeem ba dellu siwaat fa wala fexe ba euh, gisaat sëñ Muntaxa te euh, du tax la mu ko diggaloon wala la mu ko waxoon mu def ko du taxoon la mu ko tere mu mu bako euh, kooku foo yóbboon nag ba mu génn di ko layal moom la njëkk a toroxal ndax moom nee na dem na fa ba gëstu ko ba gis na ni li ñuy wax lépp ay fen la la ko sëriñ bi digaloon ma nga ca la mu ko teewoon woon na ko ba sëriñ ba waxee loolu ñaari fan la ca teg def loo xam ne moo ko njëkk def ci àdduna mooy màggal feetuk Saint-Valentin feet goo xam ni euh, du feetuk jullit bokkul ci aaday wolof mu di ko feet ne ci lañ ko seexaloon yéen ñëpp gis ngeen <coughs> feet ga mën na jàpp ni orgie la ndax la ngeen di gis ci biti muy zahir lay am ca biir moo ko gën a bon fop foofu libertinage fa am ak ak ak ak ak ak orgie moo fa am leneen amu fa xëy na loolu moo neex nii ñi moom lañ ko toppee eh, waaye dañu war a xam ni eh, ñun njabootu Serigne Touba war nañoo faggandiku bu baax a baax a baax a baax ndax day bokk ci yoonu Serigne Touba ku la gis sukkal la raamal la màggal la yëkkati addiyaam jox la ko loo mën di ñàkk ci àdduna day war nga ko muñ. waaye alal yi àdduna warulaa jaay jaral ah nga nga ngay jël cër boobu di ko jaay ah di ko jënd Aida Diallo ngir alal jum yor alal joo xam ni la ko ko may weesuut ci sa turu maam la fen tappale ca ba am loola nga wëlbati ko waat yow di ko ca sarxoo ko yàlla nag ñàkkal jom mel ne moom yow am ay Aida Diallo daanaka ngay jël di ko naanaat rek loolu moom ak ñàkk jom mun ko weesu. kon ñi wër kilifa yi nañu seetluwaat seen bopp rawatina ñi ay di ay kilifa ci ñoom xam ni lii àdduna da ko jarut lu tollee tarfatal ayni eh, ngay jéem ngay def benn acte wala ngay wax jenn wax joo xam ne lu yàq lan dara la ci yoonu Sëñ Tuubaa te ña tax nga di ko def ngir alali àdduna dañ la ci dul jox sax nag loola doyal dañ la cay tuux rek bu ëllëgee eh, nga gën koo bëgg bu ko defee leen topp ñu la cay rootalal di la ca sànni comme xaj rek nga topp ñoom di yàpp yàppi am leen fulaak fayda bu loolu jàllee nag aver Aïda jàll ci boppam laay avertir ndax Cheikh Ibrahima Fall ni gis na ko ci gént euh, ñoom xanaa moom li ñuy nelaw moom li ñuy yow moom bëriwut xanaa ni ñu gént bëri lool waaye Cheikh Ibrahima Fall day na xam ne moom seexlu na ko ba di ko feeñ ci gént ndax moom nit ku bon la Aïda Diallo ab xaj la ab saay-saay la ab wéyu la waaw man mi gën a bon ci Baye Fall yi sax day gën a bon ci njabootu Cheikh Ibrahima Fall day man seexlu naa Aïda Diallo ba di ko feeñu moo xam gént la moo xam réalité la li ma koy avertir nag mooy na baax Cheikh Ibra Fall fenam yeeg kàccam yi yooyu mu yor fas yéene far ko yéene def muy projet de société lu ko neex na ko wax ku ko neex na ko tudd mel na ci génn Cheikh Ibra Fall bu ci génnewul Cheikh Ibra Fall de ñun njabootu Cheikh Ibra Fall yëpp takku nañ dañ tegal ndeyam te duñ ci dellu gannaaw ndax nag lii nu yor nii bu fekkente ne xemmem na ko ba mu jaral ko lii ba mu jaral ko wopp ñun ñi nga xam ne ñoo ko moom defe naa ne war na noo jaral ñun ñu dee. te jaral nañu ko bu bàyyiwul tur Cheikh Ibra Fall bi muy fenee ka kàcce dañ tegal ndeyam waxuma la Cheikh Ibra Fall waaye jaamu Cheikh Ibra Fall sax du ko ci ci ndax du ku baax ku bon la. loolu rek laa amoon ci lu moo koy wax ne di ko avertir nag ne ko man nag Fallou Fall Mbaor je ne reculerai devant absolument rien aucun obstacle pour tegal ndeyam bu bàyyiwul tur Cheikh Ibra Fall asalaamaaleykum wa rahmatullah naa ko ñëpp xuddaamul xadim sëñ Murtala sëñ Fallu fal Mboor Dakar wax naa ñëpp bàyyiwuma kenn sëñ Abdourahman sax ahlul xidma maa ngi leen ko xamal bàyyiwuma kenn xam ngeen ne Safinatoul Amaan ngi ci biir kenn desul laa la wax ni lépp lépp lépp ay dajàllu mayeetuñ la bi si créé Touba moom waxaale wu ak ngaaw waaye mayeetuñ la tey nga jóg Dakar di sant mayetuñ la nga du tudd sëñ Tuubaa ci lenn du ci xasaay du ci lenn sëñ Saliou ñëpp monsieur le ministre nag mën nga waaye liberté woo daal mooy balaa ñetti fan fan na ngeen déglu di ngeen dégg ñun ñëpp dinañ dajaloo dajaloo bi nag ça veut dire que moom loola mooy bis bi ñu bi ñuy fixé tey lay jeex mbir bi tey lay jeex képp ku ko dégg yaa xam réseau gi nga nekk doon commerce wala nga nekk Sandaga wala nga nekk marché Ocass ku a doon bu fekkee ne nga Serigne Touba jaral na lu toll affaire ak fu ko mën a wootee noo nga la fay xaar góor ak ndaw nag yàllante woon nag nga sant nga doon ab xalifa ci kër ga dëkk santal Mbàkke santal koo mën a doon ak noo ci mën a bokk ñu ngi lay xamal Aïda Diallo moom day arrêté bu jeex nu dem ci beneen liggéey mooy xettali ji doomu aadama yi li sëñ Tuubaa bëgg ci ñoom ba duñ dugg safara loolu lañ tal fi ñu toll nii sëñ Murtala nga sëñ Murtala mi nga xamante ne bi ba mu fi nekkee ba léegi ba mu toogee ba léegi saa yu nekk rencontre ngir ay jëf ak i action Masaalikul Jinaan université bi ak yeneen ak yeneen yu mu mënta wax bis bu ñu gis loo xam ne kenn ku ne même ñi dul murit laa la wax dañoo dem ba egg di wax sëñ Murtala yow nga bëggati wëlbatiku nag xoolal rek loolu ak xilaafa goo xam ni ba kii cat du ci dugg mënoo cee dugal cat mënoo cee dugal cat ayda tekki woo dara tekki woo dara laa la wax ñoo ko déggandoo ginnaaw si yi yile menace kuréelu cantakoon yi ñu ngi artu suñu autorité ngir ñu jël seen matuwaay ba mu mat sëkk ci ñilee nga xamante ne dañoo yëkkati ay kàddu mu mel ni loo xamante ni dañuy waajal di rey kiile di soxna Aïda Diallo waaye ba tey cantakoon yooyu wala Aïdakoon yooyu de yemuñu foofu fi mu toll nii jot nañu déposer ay plainte jëmbale ko ci ñi nga xamante ne ñoom lañ joxoñ baraamu tuuma ci ay wax yoo xamante ñu jàpp ne dafa safaanu ak li jërëjëf Serigne Saliou. jërëjëfaat Serigne Saliou. jërëjëfaat Serigne Saliou. waaw ñu ngi tàmbalee suñuy kàddu di siyaare Serigne Mountakha xalifa général kulli murit ko ñaan mu yàgg fi lool te waaw bu ngeen gisee suñu jotaay bi lu ko waral tey mooy ñun dañ di ay taalibi sëriñ Bass jëmbalu ci moom yaakaar ko àdduna ak àllaaxira tànn ko ci biir Serigne sépp nag mu doy mu sëkk ñu ànd moom ni ñu ànd moom sëñ Bass joxoon soxna Aida Saliou ñu bëgg a dee ba gisatu leen ba da ngeen ànd ak moom muy ndigal ci ñun ñuy woy ci ndigal loolu yii ànd ak soxna Aida soxna Aida ànd ak ñun ci dañuy yar ci lu ñu sëñ Béthio doon yar mooy fonk Serigne Touba fonk màggalam gii mu woote màggalu Serigne Touba fonk xasaay bi Serigne Touba yi fonk gàmmu gii nga xamante ni buñ ko xamee ci réew mi Serigne Touba waaye fonk bësam boobu yi nga xam ni bu nu mënee yegg ba ci mën a tuddoo ay murit mun a yegg ci Serigne saalu fonk loo ñu ndigal yooyu yi dajeem boobu ak Serigne saalu moo ko waral mu xew 17 avril mu fonk loo ñu bés boobu yan ñu ci ay teggin ak taalu bi ànd ak ñun ci yërmande ak ci fonk loo ñu kilifa ñuy dox ci loolu nag ba ci biir réew mi ay wax di jib ay menace de mort jëmee ci sunu sëriñ moom soxna Aida ay appel au lynchage yoo xam ni nit ña koy def nëbbatuñu làqatuñu def seeni vidéo di woote ngir ñu dal ci kawam boobee ba tey kenn déggul ndax soxna su tedd si digal gim ñu digal nañu ne leen patt bu leen tontu na ngeen fonk kilifa na nekk ci yar ak teggin nekk leen ci li ne mooy fonk xasaay bi ak waajal bisal abdul bii di bés bu sëriñ bi waaye ñu dem nag ba yëf yi ëpp doole ah lépp tuuru ndax menaces yaa ngi bëgg a bari te nag fii ñu toll ñu ngi yëg ay velléités offensives yoo xam ni c'est pour mettre à exécution leur menace moo waral ñu daje suñu daje bii ñu daje ku xool nii ñu dajoo ak nii ñu meloo nga xam ne lu daje bu ñu waaj. daje bu ñu daje dans l'urgence la ndax information yu ñu am jugee ci réew ma ci dal gi ñu bëgg dal ci kaw soxna Aida te loolu ba mu ba mu amee ba léegi dégguñu benn yoon état du Sénégal addu ci wala jël ci benn disposition mooy ne ci état de droit la ñu ne réew mi day day réew moo xam ni danoo maye ku ci nekk nga gëm li nga gëm te doxal li nga gëm li fekk wàcculoo yoon te ñun dee wàccuñu yoon bi sant Serigne Sall ñu def nañu ko sëñ Béthio jàngalee soxna Aida defu lu weesu li sëñ Béthio daan def mooy di sant Serigne Sall mm-hmm. di togg ay berde di ko jox jaamu yàlla yi jublu ci bigal am ay woykatam ñuy woy Serigne Sall di woy Serigne Béthio mu ànd ak yi di feccal Serigne ko Serigne Béthio daan def màggalu Serigne Touba bii ne li ci jëf. xasaay bi sëriñ Tuubaa yi sunu jotaay yi ñuy daje gisuñu kenn kenn benn jotaay murit bu dajaloo gën ñoo fonk xasaay bi sëriñ Tuubaa yi liñ lañ ciy jàng xeetu ñàngin bi ak mokkal bi alxuraan bi lañ ciy wàcce ci ay kaamil génn kuréel gisuñu ko yoo xam ni mën nañ laa ñee ci wàllu woowu kon ñu ne ci loolu waaye nag bu ñu demee ba menaces yi toll fii mu toll ah trop c'est trop trop ñoo ngi leen xamal nag dootuñu ko nangu ñun ñii ay taalibeem ne fii ci Bordeaux te xaj di xajaat bi dajewuñu ndax ni ni daje bi demee tax waaye ëpp nañ ñi fuuf te noonu yi ñu baree fii noonu la ñu baree ci ci réew yi ne ci ci bitim réew yépp waaye ëppee ko fuuf Sénégal ndax ku ne xam ne ni réew moom yi kenn ëpp fa ay taalibe Sëñ Béthio te ñoo mu boole soxna Aida kenn xamul nañu toll kon nag ñu bëgg ñu xam ni trop c'est trop mbir mi mu ngi bëgg ëpp doole te duñu ko nangu menaces yi na jeex menaces yi na jeex te ñi ko jiite xam nañ leen fàllu fàll mbawoor sa bañ sañ béyto ñépp xam nañ ko mm-hmm. vidéo yaa ngi ci internet bi yàgg ngaa def ay vidéo di dal ci kaw sëñ Bethio di ko yekk lu mel ni xame kon boo boo boo jógee tey da nga dal ci soxna Aida du doon lu mu bett Moustapha Diakhaté mi nga xam ni moo njëkk def vidéo di woote ngeen ñu ngeen ñu ngeen ñu rey soxna Aida appel au meurtre yow la nga nekkee Thiès ñëpp xam nañ ko man li nga fa nekkee loolu ba nay judd gannaaw jàkk jën boo njaay Thiès xam nañ ko yow doo référence kilifa gën a seen ginnaaw nag ngemb leen di leen waxloo ak di leen dem nañ ba xam mu te moom day tànnewu leen ndax tëddee jabaru jàmbur la fi nekkee waaw waaw te nag li ñuy wax lépp dañoo am preuve yi walaay wala suñu yaram suñu teggin tax ba boobu ba léegi waxuñu fekk si leen seen terrain bu mu tax ngeen bëgg a defee ni da moom bu yi dàqul preuve yi ñu am danañ ko bind si internet bi ba nu xam ne du ngeen du ngeen ay nitul dara tekkiwu leen dara yéen yéen sëriñ tubaa xamoo leen ko lijjantiwoo leen ko fonkoo leen ko ku xooloon seen jëf ci màggal xeeb ko ku xooloon ngeen demee xasaari sëriñ tubaa yi xeeb leen kon yëf yi na dakk ñoo ngi interpellé nag le président de la république ah ndax danoon ne ci réew moo xam ne nag dafa am ay loi ak ay règlement suñu constitution daf ñoo garanti la liberté de culte ñun moo tan suñu sëriñ ànd ak moom mu joxoon ñu soxna ay ñu fas yéene ànd ak moom ndigal loolu yi yéen xam ngeen na ñun ku ànd ak sëñ Béthio doo ragal réew mii ànd feeg sëñ Béthio ragal du ko def ñoo ànd ak sëñ Béthio assumé ko mu joxoon ñu soxna ay la def ko muy son héritier spirituel ñu ànd ak moom loolu kenn mënuñu cee delluloo ginnaaw kon nag ñoo ngi interpeller le président de la république lii xew ci réew mi. du lu war a xew ci état de droit mënuñu ne ci état de droit ay nit dug def ay vidéo di def ay menace de mort jëmee ko ci kilifa ngoo xam ne ay millions nga nit ñoo ko gëm ci réew mi ak ci bitim réew te état du Sénégal du réagir ñoo ngi leen xamal ne dootuñu ko nangu nag. Mm-hmm. wax ji day mën a dakk lu ko may lu mu leen jaral jaral ñu ko. Mm-hmm. ah nañ fi leer ñun jàmm ak salaam lañ woote ci lañ ne boobu ba tey. ñun ne ku ñu xam-xam ni suñu jotaay togg ay benn jotaal ak woy di fecc loolu la la xase xasee jàmm ak salaam bëggee sant Serigne Saliou waaye nag ñu ne ba ñuy menacer de mort menacer sunu sunu sëriñ de mort ci réew mi lu mot ay ayu bés te kenn réagirul à ah, trop c'est trop dootuñu ko nangu te nag ñun ñiy féetee bitim réew ñun ñëpp dinañu wàcc Sénégal du jënd suñuy billet ñëw. te ñenn Sénégal yi ñu ngay waajal seen bopp mhm. waaw waaw ñun soxna Aida jaral nañu lu ne. jaral nañu lu ne. na ko nit ñi xam kon ñu ngi interpeller l'état du Sénégal notamment le président de la République waaw yëf na dakk trop c'est trop waaw kàddu yi foofu lañ koy yamale di ñaanaat suñu xalifa général Serigne Mountakha mu yàgg fi lool te ñoom cantaakun yi dañoo ñaawlu ba fa ñaawlu yem yilee kàddu yoo xamante ne ñi la jot nañ ko yëkkati ak mbooleem wax bu ñaaw bu ñu teg ci seen derub sëriñ waaye itam di ñaawlu ba tey ñi nga xamante ne daanaka dañuy jëfandikoo kàddub soxna Aïda jàll yooyu ngir firi ko pirin bu uute ak bi nga xamante ne moo ko taxoon a jóg ngir rek yàq deram ak jaxase ko ak yenn ci ay murit cantaakun yooyu lee ñu ngi dankaafu doomu aadama yi fii la ci Sénégal te day wax ne bis ni ki tey ñu ngi artu tey xam na ne dootuñu nangu mukk nit di yëkkati ko neex ak fu mu ko neexee di ko teg ci derub soxna Aïda Diallo mi nga xamante ne moo nekk seen njiit ba tax bañu ñu ci dara lépp lu ñu mën a jëfandikoo ba daal di teg képp koo xamante ne def nga liilee ci yoon dinañ ko def kon nag képp kuy waxati ci soxna Aïda Diallo na nga def ndànk tey te xam li ngay wax ndax ndax boo deful ndànk danañ la indil ab plainte loolu lee moom la ca cantaakun yi wax yi léey kàddu yu safaanoo ci biir kuréelu murit war nañ ci def ndànk bu baax a baax ba ñuy ñaan kilifa diine yi nañ ci wax ca ba muy teel balaa ay jéeya noppi ba jànn màttu ngóor ba dem yoonam ñu topp ca watat way dóor sagara ngi xeeñ te la muy xeeñ nañu xool fu mu jógee ñu fay ko ci na mu gën gaaw bala mu fay indi daay jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullah jërë jëfati sëriñ Béthio sunu yaakaar ji tey ak ëllëg mbokki jullit yi mbokki taalibe yi waa Sénégal ñoo ngi bëgg a wax ak ñëpp ci li nga xam ne ñëpp a ko xam ñëpp a ko teewlu ndax yéen waa àddina yéen a seere ni waxal ko seen bopp ni soxna da seere ab yaram ay tegginam mën a muñam booba ak léegi kenn mësu koo dégg mu wax baa mu jëf lu naan aaya waaye daf ci am lool mu ngi la concerné moom na mu mel yàllaa ko dogal mu mel noonu te du fa jug mukk ndax yàllaa ko teral def ko ni mu mel waaye daf ci am lool dafa ñaaw ci am réew ndax dañ di ay citoyen dëkkandoog suñuy moroomu citoyen waaye dem nañ ba xam ni ngor ak jom kenn du ko séq ku ko amut te am na ci lool boobu ba léegi mi ngi am ñoo ngi déglu ñoo ngi observer ñoo ngi analyser ndax ay way xam lañu loolu lépp ba mu dajee ci ñun on s'est organisé ndax day am lool euh, mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam ndax day mel ne euh, euh, ministre ministre de l'intérieur day mel ne dafa déggul wala muy tànqamlu le procureur de république day mel ne dafa déggul ay saaga ay menaces ba yegg ci menace de mort loolu nag kenn du ko seetaan ndax maa ngi ñëw sa kër faagaagal la nga takk say loxo takk say tànk xaar bu buñ la faatee dangaa ngaa loolu nag ñun duñ ko fi xaar ay ndaw lanu séq su suñu moroomu ndaw ci réew mi ñoom ñu taxaw temb ni ñoom li ñu gëm par force ñun loolu la ñuy gëm loolu amul fenn ñun am na lu bari loo xam ne ci seen ngëm-ngëm àndul ak suñuy ngëm-ngëm te suñu yoon néewu ca ndax suñu becco maandu la jàngal waaye nag kenn du xaar kenn mu ñëw di la fekk ci sa ngëm-ngëm di la faagaagal du ñu ko nangu nous sommes suffisamment organiser et prêts à nous défendre waaye nag dañoo nekk dans un pays de droit am na ñooñ jox nañ leen tous les moyens pour ñu protéger les citoyens yi nga xam ni ñi ngi dans la légalité képp koo xam ne am na loo ngëm te muy dëgg ci yow yoon may na la nga doxal sa ngëm-ngëm am na nag ñoo xam ne ñooy protéger loolu ñu ngi ci interpeller le président de la république interpeller le ministre di woo le procureur de la république soxna Aïda Saliou yàlla na fi yàgg te jërëjëfati sëriñ Béthio waa senegal waa àdduna ñun waa kër Serigne Béthio moom soxna Aïda Saliou Thioune dëgg-dëgg jëmmam ñoo ñëw fii di wax ak yéen ci lii nga xam ni jamono jépp mi ngi tasaaroo si réew mi muy di yëkkati ay kàddu yu ñaaw ay kàddu yu tegewul fenn di ko jëmee ci sunu sang bu tedd bii di soxna Aïda moom mi nga xam ni sëñ Béthio ba mu demee bay xool ku mu def dëgg-dëgg jëmmam moom la ko def ba fi góor ba fi mag ba fi ndaw li tax mu def ko ko it pastéefam akuk taalibeem moo ko may tey it li ñuy motalee sunu taalibe si jëmmam amul kuy sax nopp ci àdduna ku mën a tax ñu dëpp wala ñu rékki sunu gëm ndax it dafa fekk ni diine lislaam giiru nekk forcé nit ngir mu gëm dara wala mu weddi dara amu si yàlla si biir alxuraan wax na ni lii mu wax moom sunu borom fa man saa fal yumin fa man ku mu neex gëmal ku mu neex weddil ndéem yàlla moom moom moom ñu def yépp moo doxalee noonu ak nit ñi masaltumaag Samba Ndiol Ndiaye woo xam ni tekkiwul dara xamul si diine dara lu dul weddeeka ŋàññi ñooñu yéen lañuy waxal kenn si biir réew ñii ak si bitim réew mu yëkkati kàddu gu ñaaw di ko jëme ci soxna su tedd si ndax moom kat ak taalubeem ak maandoom yaram ak i tegginam ak jëflanteem ak nit ñi lu baax ñëpp seere nañ ko ñun nag ay dongo lañu lépp lu waay yor ci xeet bu mën a doon barki Serigne Touba Mbacke am nañ ko waaye it dañuy sàmmonte ak i teggin moo waral buñ naan jigéen du jiite ak jigéen nangam mais moom soxna si lan la def damay dégg Sénégal ku ne di jaay lamuñu wuree naan li mu def li mu def lan la def soxna su tedd si lan la def muy bésub sëñ Touba bii di benn bés képp muy màggalab ji soxna na raw si ëpp si ñëpp ay jëf te Serigne Touba ni sama bés bii képp ku si raw yaa raw li mu si def loolu la mais fiiraange gi ak coxoor gi loolu la nit ñi war a tegee fële te xam ni loolu taxul nit àgg ca yàlla yàlla moo fi ne yàlla suñu borom moo fi ne akub tam sëñ Tuubaa mii nu topp loolee la fi jàngale tey ji ak ëllëg ak faw ñun kenn mën naa xonk lii bëgg wala ngay jaay lu mën a doon ba tax ñu du ñu reculer du ñu arrière ñu soxna ay la tey jii ak ëllëg gënu jëm ak faw barki sëriñ Tuubaa te moom moomee fii ñuy wax ak yéen li sëñ Béthio li nga xamante ni moom moo ko def fii ci Sénégal muy cant gi soxna Aida moo koy wéyale suñuy dërëm suñuy ñaar dërëm yi nga xamante ni tekkiwul lenn si yoonam wii loolee muy ful ko def ay ngërëm ak i tawféex mu ñuy dal ñun ñëpp xam nañu ñu maandu lañu ñu yaru lañu ñu wekk suñuy wéyjur lañu ñu téye suñuy njaboot lañu dugg ci suñu yoon nekkul kon Sénégal waaye nit ñi nan maandu ndax billahi wallahi taalaay ak koo mën a doon. mënoo wax a wax a wax a wax a wax ba soppi sunu ngëm lu toll yi tarfatal ay ni te maa ngi dégg ñu naan ay dañuy tas mbooloom cant geeg nangam nangam barki alxuraanu karim bis bu nu wootee sunu bés bu mu mën a doon bu ci nit ñëwee fekk na xam ne yaa ko teg sa bopp kii si frot si picc dawuñu daywuñu barki alxuraanu karim na ngeen jàpp ni ñoo ko ëppale fuuf diin lislaam diinu nekk nag diine yi maandu la nit ki loo xamul maandu ca boo xamul te nga bëgg a xam boo laajtee ñu wax la du ñu ay jaayil soxna Aida mu tedd mi yàlla na fi yàgg te gën a wér. moom li ma ci bëgg a mottali rek euh, di ci fàttali nit ñi ñu xam ni sëriñ Saliou mi nga xam ni moo yar sëñ Bathio moom day cant gi nu nekk jëf ji ak doxinam wii da koo jëf ci kanamam. te soppiwu ci dara mu mel ni nag ab jotaayam ba nu demee ba mu def lii nga xam ni wax dëgg yàlla lu mel ni lu lu nu làq jëmam la te mu dimbali nu ba nu xam ni du fi jóg sëñ Bàccu moo ngeeg ñun ba faw lii nga xam ni nag moom la dogal ci soxnaam su tedd si loolee danoo bëgg a wax ak àdduna ni nun soxna si jiitewuñu ay julli soxna si jàngalunu ay ibaadaat ak yëf loolu boo demee ci biir diine islaam gi ñu nekk loolu ay règle la kenn ku ci nekk yaa ngi dund ni nga xamante ni noonu nii la yàlla sunu boroom diglee ponki jullit yi nga xam ni noonu la koy pratiquer ci ak ci ak jullitam mooy di julli di natt asaka di aji màkka loolu yi kenn ku ci nekk li ma bëgg a leeral mooy soxna si sunu pas-pas la jiiti loolu yi damay dégg ñoo xam ni dañuy toog ci média yi naa soxna si jigéen du jiite ci islaam lan lay jiite lan soxna si jàmmalun ay jullee ko jàpp loolu yàlla mi digal moo nu ko jàngal bu doon loolu yi rek kon nit du am sëriñ kenn ku ci ne sa kër man nga faa toog la la yàlla digal nga koy def taxaar yërmande yàlla ëllëg waaye yoon wi sëriñ Tuubaa woote yoonu pas-pas la kon ci loolu yi sëriñ bi yar nun ci loolu lii la ñu mottalee sunu bi loolu rek laa ci bëggoon a yeggee waaw xam naa ñu xamee ko noonu xam ni ñii topp sëñ Béthio nun nun nun danoo nekkul ay ay jaayil nekkuñu ñoo xam ni danoo nit ñu xamul dara déedéet nun sëriñ bennu yar amaana nag boobaak léegi ñu ci bari sunu tekk rek la ñu dégg moo tax waxuñu dugg ñu ci yëf jàmbur ñu dul ci li ñu sëriñ bi yar rek ci la du nekk moo tax nag ah waaye nag fi ne luy jot jot na fi mu ne ay taalibe noo taxaw di wax ak loo xam ni danoo laal nag seenu pas-pas ndax mënoo nekk ci internet bi saa boo xëyee di wax seenu sëriñ lu la neex nga wax la lu la neex wax la loolu nag dañoo bëgg mu dàkk waaw noo ngi noo ngi noo ngi tubalaat moom xam naa ni wax ji euh, liñ ci bëgg leeral lépp sax amaana buñ ko toppee mën naa am nu nu nu yegg feneen bi nga xam ni moom la ñu sunu suñu bopp adduna ak alaaxira moo nu jël boole nag jëmmam ji ngir nu ànd moom liggéeyal sëriñ Touba te boobaak léegi ñun ci lanu nampatale sunu bopp ci lanu amee soxna ci lanu amee ak njaboot te boobaak léegi day mel ni ci réew mi kenn mësul dégg doxinub cantaakun lu dul ci yoon wii ko sëriñ sëñ Bethio yar mooy nekk saa su nekk ci liggéeyal sëriñ tubaa di jàng alxuraan di jàng xasaay di di ko mokkal saa su nekk ak foo fekk nuy def santaanib yàlla bii mooy saa su ne foo fekk nuy togg di joxe ni ko sëriñ Saliou digle woon nun loolu rek mooy sunu yitte kon wax dëgg yàlla sunu sëriñ bi booleeg jëmm ji nga xam ni moom lanu ñu àndal di liggéey sëriñ Touba ñenn ci ay murit boobaak léegi jóg fu waay toog di ko dendale ba ci ay tifaar sax loolu nag trop c'est trop dafa am loo xam ni dafay am fu mu yem ndax kat nit soo joxar bi ci moom di wax loo xam ni la ngay wax daanaka la ngay wax lépp mën naa ni ci ay sos rek nga ko teg loolu nag bu yàggee. da ngay laal ngëmu jàmbur te ñun ki nu booleeg moom dañ koo gëm lool dañ koo yaakaar ndax daa am fu nu jëlee ak fu nu indi ndax nun day demoon nag ba ñun wér nañu suñuy waajur sax amatuñ ci ñun yaakaar sëñ Béthio jël ñu defar ñu nii munu def sëñ Béthio yar ñu jàngal ñu xamal ñu suñu demee ba tey jëmmi jamono jii te nu wér nañu ni ñun sëñ Béthio du fi jóg mu jël ñu boole nag jëmmam ji nga xam ni dañu mottale leen seen pas-pas ci moom kon wax dëgg yàlla su suñu wutee ak lim nu digal day mel ni ñun suñu njëbbal googa dañ koo tegoon ci suñu bakkan loolu yi nag danoo bëgg a interpeller état jaarale ko ci président de la république ak la ministre de l'intérieur ndax réew mu ngi nekk réewum droit la suñu gëm-gëm kenn mënuñ cee jële soxna yi de la mu àndal tey jii ak ëllëg gënu jëm loolu nag noo ngi ci woon ñëpp ñi nga xam ni nag ñooy génn boobaak léegi di offensé nit ñee ko wax lu ñaaw rek lañu xam ndax mu murit kenn su koo xamee ci lii ñun sëñ Béthio yaruñu ci lii yaruñu ci foo fekk ni jokkor beeg waxante lu ñaaw ak di ko jëf ñun xamuñu loolu ñun danoo yar ci ay teggin yar ñu ci xam-xam yar ci naka la ñuy toppee ak naka la ñuy liggéeyal Sëriñ Tuubaa kon nag bu ñu gisee ñoo xam ni daanaka ci yoonu murit ñenn laa wax nag tekkiwuñu dara mënoo mënoo cité seen i tur te ñooñu bu ñu leen xabal bu fekkoon ay teggin suñ ba ci yaruñu ci bu ñu génnee ñoom ñépp ñu dar seen nopp ndax ñun ci réew mii la ñu juddoo ci yoonu murit ci la ñu màggee kon danoo bëgg mu na fi na na na yem ndax ñun duñu ay ragal na. foofu la ñu mën a yem noo ngi euh, wax daal li nga xam ni ñi nga xam ni ñooy kilifa réew mi dun lépp loo xam ni ci la ñu sëriñ becco teg ci la ñuy sax faw loolu daal ci la ñu mën a yem kon daal noo ngi koy waxee ni foofu te bu nu paree ñoo ngi ci sunub liggéey waaw kon foofu la ñuy yemale rek ma la ciy dollil suñu bakkan jaay dañ ko barki sëñ Bamba képp ku ñëw fii bëgg barki Serigne Saliou Mbacke cantub Serigne Saliou gi arrêté ko jaay la ñu suñu bakkan maay wax yéen de noppi nanu barki sëñ Bamba dem armée réeru tëdd fa moo nu gënal dund barki Serigne Bacco dem armée réer tëdd fa moo nu gënal dund ku fi ñëw xam ni jaay la ñu suñu bakkan cantub Serigne Saliou gi foofu